bisu bu waajuram bu wu tedd wi nekkoon sëñ Basiir Fall alxuraan euh, jàppoon bu ñu màggalee ba euh, ay bis ga jësës ñu taxawal bis bi yàlla dogal ñu doon fi ñëw Seex euh, Sidi Muxtaar duñu fi yebal ñu di ko fi teewal ba defe naa lu mu néew néew juróom-ñetti at mat na ko ñu doon fi fekk sëriñ bi muy nit ku baax muy nit ku toog muy nit ku gore muy nit ku dal muy nit ku amuk taalibe muy nit ku yëg njabootu sëñ Tuubaa itam eh, yàlla dogal lii ci moom tey ay njabootam àndandoo di ko taxawal bis boo xam ne dañ ko ci ñaanal doy na sëkk sant yàlla bàyyi koo fi bàyyi fi ñu lay ñaanal waaye nag ñu lay ñaanal ci weeru gàmmo ñëpp xam weeru gàmmo teddaa nga ji mu tedd ñëpp xam fi ko sëriñ Tuubaa tegoon itam mu yàlla dogal nga bàyyi ko fi eh, bis boobee ñu wéyal ko sa njaboot wéyal ko ndax nit mën naa am lu ne ci adduna bàyyi ko fi waaye du fi bàyyi ko ñaanal te mboolem ñi xam ne ñoo daje fi tey lu mu néew ne am na fi nit koo xam ne fu mu yendu eh, dana dana sowe ñëpp wala fu mu fanaan dana sowe ñëpp loolu nag daanaka doy na sa sant yàlla ndax am na ñoo xam ne kuñ bokkalub jitaay raw nga kuñ bokkalub dëkk raw nga kuñ mbokkal diggante diggante bu ñu bu tund wu toog nga toog fa kepp raw nga euh, kon nag sëriñ bi ñoo ñëwoon tey ji ngir siyaara si la ci sa bisu waajur bu tedd wu tedd wii euh, mu doon taxawal mu jóge fi nga wéy di ko taxawal euh, xam ne la nga ku amoon sëriñ Basiiru Fall du ma wax ne xaw ma ñëpp de waaye ñi ëpp yaakaar naa ne tey ji rëccuñu la te loolu jikko moo koy maye ndax sëriñ Basiru mënoon nañ fi ñëw ba mu jóge fi ñi fi daan ñëw dootoo fi gis waaye loolu dëllu la ndax ñun ñii de dëgg la sëriñ Basiru indi nañu fi eh, waaye sa jikko bokk na ci li nga xam ne sëñ sa sëñ Basiru mii saa bu ñu wooyee wax ñu ko wala mu yónnee ñu lettre duñ laaj waxtu wu mu doon ak fu mu doon ak nu doon dañ koy daal def suñu yitte bu ñu jàppoon génn dem fenn sax loola dañ koy bàyyi te loolu lépp du dara lul jikko ndax ñun moom eh, Sëriñ Tuubaa li muy maye fàttewuñu ci moo tax ak yëg rek lan lan nit ameel waaye leneen lu mu doon noo nga noo nga cay sant sëriñ bi ba tax na ku am ko yëg ci nit ñi nga ku jàpp nit ñi nga itam ndax lépp loo xam ne dégg nga mu yëngu itam ci feneen li ci yenn saa moo fa demee sax mu daje fa te loolu lépp dafay wane rek ni li nga war a dox kon yaa ngi koy dox kon ñu ngi lay ndokkeel ci bis bi te di la jaale sëñ Cheikh Ndiaye di ko jaale sëñ sëñ sëñ Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalifa bi ñu ñu di ko ko jaale di ko jaale sëñ Fallou Fall ak njaboot sëñ Modou Moustapha Fall gépp waaye yow mii yàlla dogal ñu ñëw ci sa bis dajeeg bis bii mu mu am itam daanaka mën nañ ne bis boobu mu demee sa sa bisa kon ñu am nga cib cër kon ñoo ngi la koy siyaare bu baax di ko siyaare sëñ Bassirou mais di di di di di sa lépp. te yaatal lool waxoon naa ko fii daaw man du ma wax lu ma gëmul du ma wax lu ma gisul waaw yaatalal na la ci nit ñi sëriñ Basiru amoon ngir mu wane ak yëg goo am ci ñoom ak ak jéego yooyu dox ci ñoom loolu daanaka bokk na ci li nga xam ni waxoon naa ko fi daaw te te ren jii dama koy yeesalaat dama koy waxaat ndax bu doon ma ngi doxee neneen neneen na duma ko wax waaye duma wax lii ma wax. kon nag dañ lay ñaanal nuyu Serigne Khadim mi ak euh, ak ak sa yi toog yëpp ñu di leen nuyu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla euh, te te di la sant bu baax itam te di la ñaanal nga yàgg fi nga wér ba sa wajur woo lu mu tàmbale woon nga yeggaleel ko ko Euh, mën nañ cee rafet njott nag ndax liñ cee rafet a njott mooy yàllaa ngi nuy dimbaleegun ba bi ñu toog fii buñ ñaanee sëñ Baara mu defal ñu ko kon nag ñoo ngi ñaan sëñ Baara yàlla mu yàggal la fi mu may la wér mu may la kattan wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare di nuyu suñu Cheikh Baara Laat di ko sant bu baax di ko yóbbante ab siyaar ci sëñ mu ci sëñ Moustapha mu suñ Cheikh Mati lay sëñ baa ngi koy nuyu bu baax te di ko siyaar di la yóbbante ab siyaar day am kontaan te loolu ndax suñu Cheikh Bara Lahat day mel ni bu fi teewee teewal na fi njabootuk gi guy mbind gépp ak njabootuk Daaru Xuddus gépp te saa su ne li ma waxoon ci sëñ Bass Abdou Khadre ci sëñ Cheikh Bara Lahat ba fi suñu waajur nekkee muy sëñ Bassir Fall Alxuraan lépp lu yitteem lu mu soxla woon ci sëñ Sidi Matar ci moom mii lay jaar te su ma ko jotee na ko sëñ bëggee noonu la koy defee ci di ko taxaw ci lépp nag eh, ba mu noppee gis sëriñ beet nam jàppee woon sëriñ bi la jàppe sëñ Gunda mii ak njaboot gi ak benn ci man mii lépp loo xam ne suñu téye suñ ko waxee nam ci war a taxawee noonu da cee taxawee lépp ba bu sañoon it lépp lu mu nekk moom mii dañ koy dañ ko lépp lépp lu nekk ñun dañ koy wax maanaam lu manqué daal ci suñ diggante siñ bi ñu ngi tub tey jégglu maanaam xëy na yitt yeeg ndigal yi moo moo moo ñu galfan rek waaye bu mu sañoon saa suñu doo umpale dara ci ñun ndax euh, fa nga tegoon sa tànk ci sëriñ bi da nga ko yokk ay wàññoo ci dara loolu sëriñ bi xam na ko taalibe yi xam nañ ko ñun ñëpp it seere seere nañ loolu baax dañ lay ñaanal nag mission bi nga xam ne moom la euh, Serigne Touba Cheikh Mountakha di doxloo sama borom may la kattan may la tawfeex ak wér ba ni mu ko bëggee nga nga defee ko ni te saa su xam nañ ne amoo jot saa su ne yaa ngi ci ndigal loolu xam nañ ko euh, sa na lool waaye teewul bis bi mosuñu mos suñ la ko waxul sax boo ko yëgee da nga kon am na loo jàpp ndax da ngeen jàpp ne ñun moom àlli Serigne Touba rek lan te yéen fekk fa fekk àlli Serigne Touba dañ ko seen bopp loolu gis nañ ko yaa ngi koy doxe yaa ngi koy waxee te it li nga wax fii moom ñëpp xam nañ la suñu Cheikh Bara Lahad moom du du maam du lu mu gëmul du ko wax am loo xam ne xaju si moom moom kenn gisu la daal ngay necc loo xamante ni lu ñu lu ñu xewet la suñu Cheikh Bara Lahad fépp foo ko gis xamal ci ndigal la ne xamal ne boppam it moom kenn du ko fooyee loolu moom ñun ñëpp mën nañ koo seere kon ñu ngi lay sant di la gërëm baax a baax ñaan yàlla saa borom dëgër la te defal la tawfeex barki Serigne Fall baax na jërëjëf Mbacke jërëjëf